moo ngi ñëw. xalo xalo pare ngeen pare ngeen. Eh, pare ngeen. asalaama asalaamaaleykum. man Ouzin Keita maa ngi nuyu ku nekk trom ak santam di nuyu euh, kilifa diine di nuyu kilifa euh, kilifa euh, kilifa aada yi di wax man ousin Keita man maa ñëw woo média yëpp di wax man nag man Ouzin Keita ku xam Ouzin Keita xam na Ouzin Keita commune musicale lay def ku xam Ouzin Keita xam na Ouzin Keita no stress lay def ku xam Ouzin Keita xam na Ouzin Keita day bëggal doomu aadama man Ouzin Keita nag Euh, doom gu baax ñëppay juum man Ouzin Keita man dama juum bu paree sama tailleur juum ndax man Ouzin Keita ñi ma xam ñëpp nan maa xamee si sol ay fële rëw sol ay yëre comédie ñi ñi kaf ñi ñi reetaan bu ma xamoon yëre nii lay nii lay mel duma ko sol de dèjà ñi xam xam ne ba may ñëw ba may ñëw si ses jàllabe laa sol gis ma woon sa yëre yi may sol man Ouzin kaita mangi ngi nyep ñëpp di wax man ma jum mangi ngi sama loxo di ñaan di ñaan sama fansi muy euh, sama fans kiri kilifa yi euh, euh, kilifa diine kilifa aada di wax man Ouzin kaita man ma jum mangi ngi jégalu bu baax di wax tam man Ouzin kaita yeri yi yima sol di ko woon ñi xam Ouzin Keita xam na Ouzin kaita dox suñu ñàkk fayda ñi xam Ouzin Kayta xam na Ouzin du PD ñi xam Ouzin Keita xam na Ouzin Keita du homosexuel Sénégal nag euh, euh, man maa aye moo tax du olof ñaar dana ku aye woon sa moomee moo tax tey ji solo yi di bind penes yi di bind média yi di wax ku ne di wax loolu sant yàlla ndax tey ji euh, yéen saa sama gën di mbindeef dafa man baatu ginnaaw kon tey ji man man xale bu ndaw ndaw ndaw ndaw ñëw tey ji sol benn yére solo yi di bind média yi maa ngi ñaan yàlla suñu borom di wax Euh, di di wax ñëpp di di wax ñëpp man Ouzin Keita maa ngi jégul te yàlla tax da yére bu yére bu ma sol yàlla xam na yàlla xam na bàkki Seydina Mohamed yére gisuma ko woon soo bi laay soo ko gisee yére bi sama staff ak sama producteur dana sama tailleur ñëwal ko yére bu comédie sama tailleur moo juum ñëw ma yére bi ba mu paasee dama kaa woo dal si koom mu ne ma Ouzin Keita dama doon le dama doon créé yéen marque Jackson mën na ko mën na ko mën na ko mën na ko fii senegal la fii senegal la senegal dëkk diine la dëkk lislaam la maam Alaaji Maalik fii la nekk Sëñ Tuubaa fii la nekk maam Baay Laay fii la nekk senegal li li am Europe amul senegal li am li am États-Unis amul amul senegal sama tëye nag moo juum ñëw ma ñëw bi da ñaw bi yàlla xam na bakki Seydina Mohamed gis moon yër bi maa ngi jégalu bu baax a baax di di jégalu waa senegal jégalu samay fans ndax man aussi ku ne bëgg na ma waa Touba yaa ngi may woo waa Alaaji Maag yaa ngi may woo Tijaan yaa ngi may mu dem ci yaa ngi may ñëpp nga mu yaa ngi ku ne nga may woo man leen man damaa juum da sama yëre gisuma ko woon man nag maa ngi euh, maa ngi tuub di taalal loxo sama di taalal sama loxo di di wax Ouzin Keita li dootuma daati man nag gis moo lu may sol sax na boobu stress euh, anniversaire bi jàpp na ma ba ma sol li may sol ñi xam Ouzin kayta média bi li muy rëy rëy rëy am na ñoo xam ne xam nañ Ouzin Keita journaliste yi boo waxee te yàlla tax xam ngeen Ouzin Keita man bu ma doon dox ci ñàkk fayda kon du ma fréquenté kenn kon Ouzin Keita maa ngi euh, euh, maa ngi daw si oto yu baax yi maa ngi daw si si ranch yu baax yi nit nat nit nat mënut a ñàkk

accessoire euh, euh, kii accessoire euh, yaa ma jàpp boobu accessoire bi soo def soirée bi ma sama première fois Ouzin Keita ma tëgg soirée ni ni ma mel nii ni ma mel nii si naturel accessoire moo ma jàpp moo tax tey

Sikki doo ko doo ko def. man man Ouzin Keita man man man Ouzin Keita mënut a ñàkk foog ñuy wax. li ma waroon wax wuy ma. waaw. jaane si jàmm saam sant naa yàlla sant naa ñëpp di wax Ouzin Keita li ma sol xaw ma ko woon maa ngi tuub di jégalu di xam ne Ouzin Keita li xew Sénégal xew États-Unis sama tëyee moo juum man tara nday tara baay moo ma tax a jóg man li ma am jox naa ko sama yaay lekkuma dara bàyyi sama yaay ñu xam Ouzin Keita xam ne Ouzin Keita mun tey ñàkk daf foog ku nekk di wax am na ñoo xam bës nañ bëgg ndax yàlla suñu borom def def na ko paye Ouzin Keita Ouzin Keita mi nga xam ne maa ngi su ko am 6 ku ne ñëw am nañ mun tey ñàkk damay gis ñoo xam internet nañu wax Ouzin Keita lu ne bugg siiw bugg sama bës yàlla lu mu def def na ko paye def naa benn soirée sol benn yëre def erreur nit ñi bind presse bind ku nekk di wax comédie ku nekk bëgg bës sama kaw du xam ne yàlla suñu borom def na ko paye jàmm mun si dara man na maa ngi jége di wax ñëpp di wax merci à Hey, hey, I know, hey.